pour son jàngat du mercredi de votre fidélité à tout de suite. RFM matin émission bi yee waa Sénégal. RFM matin sunu gan Baba Diallo directeur général ASER salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. ñu ngi nuyu Georges Dieng Diop itam euh, ASER moom mooy. Euh, Euh, bànqaasu nguuru senegal gi ñu dénk mu yóbbu courant bi ci ci àll bi. Mhm. am na ndaje boo xam ni yéen a ko ci euh, amal euh, jamono yi fii ci Ndakaaru senegal nag yéex na lool ci wàllu jox waa àll bi courant ndax bu dee téeméeri village yoo jël lu jege juróom fukk ba léegi mënuñoo am courant am déet. Euh, waa jërëjëf euh, Babacar jërëjëf euh, Georges <laughs> ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci invitation bi comme ni nga ko waxee je pense que am na précision bu ñu ci war a yokk c'est-à-dire que c'est vrai que taux d'accès électrification rural bi mu ngi ci cinquante pour cent loolu mooy boo demee si monde rural bi téeméeru foyer yu ñu jël téeméeru ménage yu ñu jël juróom fukk yi ñoo am courant mais bu ñu xoolee. Euh, lu ñu tuddee taux de couverture maanaam tey dëkk yi nga xam ne am nañu courant si biir Sénégal njaboot yi ñu ngi si taux de couverture bi jege na soixante-dix pour cent maanaam tey boo jëlee àll bi euh, ñaari ménage ñaari foyer yoo jël ñett foyer yoo jël ñaar ñu ngi si dëkk bi nga xam ne am na courant euh, taux de raccordement bi nag si possibilité ménage bi ak volonté am courant bi mun na ñëw ba sa buntu kër. nga bañ a def abonnement nga bañ a raccordé wu mais bu ñu jëlee nag ñi nga xam ne courant bi yegg si na ba si seen buntu kër mun nañu ne tey euh, ñett sénégalais yoo jël si monde rural bi ñaar yi ñu ngi si dëkk yi nga xam ne courant bi yegg na fa courant bi. ñëw na fa seen yaa ngi wëlbati chiffres yi di ko dugal di génnee. Mhm. mais li am solo mooy nit ñi jot ci courant. ku sa courant yegg si sa buntu kër ci àll bi te jotoo ci itam xëy na yombal lu ñu la ko li am solo mooy mhm. am na. téeméeri village yoo jël ci Sénégal juróom fukk yi amuñu amuñu amuñu courant. bon bu ñu jëlee en terme de village mun nañu ne xëy na sax yàgg yàggul euh, téeméer yu ne xëy na juróom fukk amuñu courant parce que tey boo jëlee Sénégal lu ñu tuddee village am nañ si quatorze mille villages si quatorze mille villages yooyu daanaka quatre mille cinq cent ñeenti junni ak juróomi téeméer ñoo si am courant yeneen ñetti junni yi ñu ngi si ay programmes yi nga xam ne ñu ngi leen di teg. donc tey bu ñu jëlee si nombre village rek euh, mun nañu nangu ne d'ici fin d'année fin deux mille vingt et un bu ñu terminer programme yi nga xam ne ñu ngi en cours boobu dinañu yegg si sept mille villages loolu mooy nekk euh, cinquante pour cent des village donc chiffres yi il faut ñu def si attention puisque si électrification tantôt ñu wax nombre de village tantôt ñu wax taux d'électrification rurale nga xam ne euh, nombre de raccordement yi la ñu jël tantôt également ñu utiliser taux de couverture donc ça dépend si pays ça dépend si approche bu ñu bu ñu utiliser daal. et pourtant et pourtant ci seen ndaje mi mhm. euh, seen i objectif fii ak deux mille cinq moo di euh, environ électrifier treize mille villages et hameaux. exactement parce que. Euh, Euh, le plan Sénégal émergent de son excellence monsieur le président Macky Sall ambition mooy ñu réaliser accès universel à l'horizon 2025 accès universel boobu nag du Sénégal rek la soxal parce que bu ñu jëlee système des Nations Unies lu ñu tuddee org euh, objectif di millénaire pour le développement ODD yi euh, accès universel à l'électricité place prioritaire la ci am mooy ODD numéro 7 ODD boobu nag lu mu visé mooy en 2030 partout dans le monde électrification bi war na yegg ci village yëpp ñun ñi am accès universel. mais comment comment comment se fait-il que. Euh, PSE bi yóbbu accès universel bi 2035 te seen euh, yéen yéen euh, ngeen di naan 2025 war nañoo atteindre accès universel à à l'électricité non non non PSE bi lu mu visé mooy émergence Sénégal à l'horizon 2035 mhm. mais bu ñu jëlee volet accès électricité 2025 la PSE bi lu mu visé mooy 2025 ñun ñu ngi en phase avec le PSE parce que mooy référentiel politique économique yi ñu def leneen li nga xam ne àndul ak PSE donc Euh, ñu ngi viser accès universel à à l'horizon mille vingt cinq loolu lu mu euh, euh, signifier mooy en deux mille vingt cinq sénégalais yëpp ñu nekk ci monde rural bi ak ñu nekk ci périurbain yi war nañu jot ci électricité loolu nag moo waral daje bu ñu amoon démb muy table ronde bailleurs de fonds yi ci processus bi nga xam ne sumb nañ ko depuis quatre ans avec Banque mondiale ñu dégager lu ñu tuddee stratégie électrification accès universel Euh, ñu pare ci stratégie boobu ñu def lu ñu tuddee plan opérationnel maanaam euh, de façon précise ñaata village walla amoo ñoo des ci Sénégal te amuñu courant amoo yooyu ak village yooyu nan lañu fa yóbbee courant maanaam ban technologie moo fa euh, gën a adapté wu puisque am na ñi nga xam ne seen village yi soriwuñu ligne électrique yi donc loolu lu gën a yomb mooy ñu def extension réseau électrique yi am na village yi nga xam ne tamit dañu ngan dépassé nañu mille habitants yooyu boo leen bëggee alimenter solaire il faut nga boole si groupe électrogène te loolu tamit day indi jafe-jafe ci monde bi moo tax village yi nga xam ne romb nañu mille habitants ñooñu tamit dañ leen di connecter de façon volontaire ci réseau électrique mais lan mooy problème bi euh, dafa mel ni danga nga bëgg wax ne problème technique la euh, est-ce que du problème mu xaalis ak euh, Pastef ci nguur gi ngir yóbbu courant bi ci àll bi Euh, ñaar yëpp la parce que am na lu ñu tuddee optimisation de l'utilisation des ressources maanaam euh, ressources publiques yi nga xam ne gouvernement bi ak partenaire au développement wala secteur privé ñu ngi koy dugal ci secteur énergie war nañ ko utiliser de façon efficace ak efficiente maanaam dërëm bu ne fu mu war a dem war nañu xool ndax foofu la yelloo donc am na fi nga xam ne def fa solaire moo gën a rentable moo gën a rentable pour collectivité bi am na fi nga xam ne nga raccorder réseau yi moo gën moo tax nag ñoo séparer villages yi amoo yi ñett catégorie bu njëkk bi mooy yi nga xam ne dañ leen di raccorder ci ligne électrique yi bu si topp mooy yi nga xam ne dañ fay teg centrale électrique mini centrale solaire pour muy alimenter euh, village bi yëpp Euh, yeneen yi nag mooy am na ay dëkkuwaay yi nga xam ne seen population yu bëriwul mais population bi tamit dafa dispersé wu boo ñu demee si àll bi sama mbokk éleveurs yi da ngay ñëw kër yi dañuy soranto yooyu munoo fa def réseau électrique lu lu si gën a efficace mooy kër gu ne ñu defal ko système solaire individuel. maanaam système solaire boobu gis nañ fi ay centrales yi nga xamante ne def nañ ko fi. Mhm. lan mooy njëriñ li su ma euh, la posé question bi moo di. parce que gis nañ ay diwaan yi nga xamante ne ab centrale la nga fa. Mhm. toolu euh, toolu courant te mënoo caa béy wala mënoo caa jële dara. waaw loolu mooy euh, bon mun nga ko méngale autoroute yi parce que bon autoroute par exemple boo jëlee Ila Touba yi mu ngi jóge Dakar dem Touba romb na dëkk yu bëri mais munoo dëkk boo ñëw rek nga génne autoroute bi pour mu yegg si village yi nga defal leen yi réseau électrique électrique tam benn la. waaye day am sorti tey ñu ngi si lu ñu tuddee transition énergétique muy Sénégal muy si monde bi euh, défi bi mooy produire énergie de façon propre ak durable ñu bañ a agresser environnement bi loolu nag moo tax gouvernement Sénégal depuis 2010 ñu. teg ay loi nga xam ne mooy promotion des énergies renouvelables loi boobu nag moo tax ñu installer ay centrales solaires installer ay centrales éoliennes mais également euh, ak gaz bii di ñëw ñu ngi dugg ci vraiment une transition énergétique produire de façon propre nga xam ne du ñu agresser environnement yi donc centrales yooyu mag yi ñu ngi ci lu ñu tuddee réseau interconnecté bi ñooñu ñu ngi produire ay mégawatts yu bëri ñu injecté ko ci réseau haute tension bi réseau haute yi mooy autoroute électricité yi boo demee nag ba jege village yi wala ville yi nga def lu ñu tuddee distribution nga wàcc tension ba mu nekk moyenne tension boo duggee si biir dëkk yi nga defaat basse tension nga xam ne loolu mooy dugg si biir kër yi donc teg central rek wala teg réseau haute tension Euh, waruñu yem foofu on doit aller plus loin donc dëkk yi nga xam ne sori wuñu réseau yi dañ leen connecté si réseau yeneen yi nga xam ne sori nañu réseau bi à plus de sept kilomètres voire dix kilomètres ay mini centrale lañ fay teg ak euh, bu ma njëkkoon wax aussi mooy euh, dëkk yi nga xam ne population yi bëri wuñu et habitat bi dafa dispersé wu ñooñu ay mini centre ay solaire individuel lañ leen di offrir mm-hmm. ñu fàttali ni Baba Diallo directeur général ASER agent sénégalaise d' électrification rurale mooy sunu gan tey euh, ci wàllu politique nag euh, maatam ngay milité ci APR. Mhm. Euh, ci département Matam ci commune bu Ngidjiloñ. noonu la mhm. yéen yéen a fi doon meeting jël ay million yi millions. ñii naan cent vingt ngeen naan soixante ak lu mañ ci doon ay millions yi millions. Mhm. yàq xaalis ba ci meeting di wane <laughs> seen jàppale ci Macky Sall. est-ce que rëccuwu leen ko ndax yéen a ngi yeewoo ci dëkk boo xam ni foofa ca Matam ak la ko wër ak Sénégal gépp ku ne xam na li askan wi daj euh, gis ngeen critiques yi leen ci critiqué mhm. amu leen ci kersa taya ah? bon politique ñaari dimension la mun naa wane ne amuñ si benn kersa parce que politique ñun ah bon c'est grave si si pouvoir la ñu nekk donc suñu rôle mooy monsieur Diallo suñu rôle mooy ñu répondre d'abord aux attentes des population donc euh, équité territoriale justice sociale buy président di woote euh, gouvernement bi mu ngi si taxaw pour que piste rurale yi eau rurale bi ak électrification emploi des jeunes yëpp gouvernement bi di si taxaw mais politique aussi day ànd ak li ñuy tuddee mobilisation ak remobilisation donc mun na na mun ñu toog bañ a animer nos partis à la base yàlla def na na depuis un an ñu ngi woon si covid bi defuñu ay manifestation defuñu dara nekk ci ñu ngi si Covid bi ba léegi mais yàlla dimbal nañu tey si Sénégal am na fu ñu toll donc euh, bu ñu xoolee courbe yi ak indicateurs yi Covid bi ni mu meloon y deux mois melatu ko noonu donc moo tax ñu lever état d'urgence sanitaire bi bu ñu lever état d'urgence sanitaire bi signifié wul Covid bi jeex na donc war nañu continuer di asir en responsable di asir en respectant les gestes barrières mais nag. Euh, comme nu ko président waxee woon si discours am l'année dernière yaa ngi ñuy mbal ak dëgg parce que seen meeting boobu ci stade du Matam bi. bon dinaa si ñëw nit ñi nit nekk fa ay junni junni junni doomu aadama takkuñu masque di dencaloo. nga ne ñu respecté geste dinaa si ñëw parce que actuellement ñu ngi si pratiquement dix sept jours wala pratiquement vingt jours après meeting bi te bu ñu xoolee indicateurs yi amul benn impact si évolution Covid. dans la zone ou dans la région de Matam donc euh, ñu ngi cumuler ay. yéen a yor nguur gi mën ngeen ko nëpp nëppal ah. non loolu mënul am c'est science c'est scientifique donc euh, les médecins les personnels de la santé ñi nga xam ne ñu ngi fii di gérer yenn yi euh, du ñu tâtonner ci loolu donc la science ne ment pas donc Sénégal. du ñu toog fii di inventer ay affaires pour faire plaisir à quelqu'un ou un autre donc ce qu'il faut lu ñu bëgg bëgg a xam mooy ñun am nañu sañ-sañ animer suñu parti euh, retrouvaille ak suñu militant mais aussi conseiller leen pour ñu respecter gestes barrières yi donc euh, euh, effectivement mobiliser woon nañu ñun responsable yi ñoo toog ñu ne dañuy dem Matam wan président ñu ngi ci ginnaawam que population Matam ñu ngi ci ginnaawam ñun ñoo mobiliser suñu 71 millions yeggul 120 millions. mais 71 millions yooyu. est-ce que mënul woon. Mhm. jëriñ ay ndaw ci ab projet. oui ça ça va de pair puisque à millions yu ñu fa def am na ay milliards ay milliards yu ñu mobiliser à travers gouvernement bi à travers ONG yi à travers yeneen bonne volonté pour Euh, répondre aux attentes des populations donc mënuñu rek mënuñu rek focaliser aussi 71 euh, millions waaw ah yi ngeen di xeeb xeeb ngeen ko parce que dégg nañu ay yenn responsable yi di waxee noonu mhm. li ci gën a garaaw mooy yéen fu ngeen jëlee 71 millions yu ngeen pasar pasare ci ci meeting looloo graaw bu doon réew mu normal tey mhm. procureur waroon na ubbi enquête ci yéen fan ngeen jëlee 71 millions euh, yan liggéey ngeen fi liggéey mhm. ba mën a jël 71 millions mhm. roof ko ci meeting boo xam ni euh, amul njëriñ ci dundunu askan wi est-ce que euh, war ngeen a xeeb lu graaw li ngeen def ca ca Fuuta waxu waxuma xeeb nañ ko walla dama ne si vie normale parti wala si vie normal organisation de temps en temps da ngeen di jóg ne dañuy def activité bi activité bi nag da ngeen di mobiliser wu def lu si war euh, ba activité bi réussir parce que mënoo dëgg dugg si dara encore euh, pour échouer wala leneen donc ñun format bu ñu décidé woon def il fallait ñu mobiliser. donc mobilisation bi laaj na ñu déplacé suñu amee yi ak suñu xarit ak camarades yi nga xam ne ñu ngi dakaar wala ñu ngi si ay villages reculés pour yóbbu leen Matam Matam c'est pas Nguidjilone c'est pas euh, c'est pas Nabadji du ci loon donc boo déplacé population il faut ñu nekk si yenn conditions yi il faut ñu nekk si euh, nga louer ay oto ñu lekk naan affaire yu mel noonu donc munoo munoo déplacé nit ñi dans dans le vide def leen si yenn conditions yi donc loolu moo tax ñun responsables yi ñu ne dañuy cotiser wu. ku ne def si li nga mën am wu ñu kenn et cotisation volontaire la donc bu ñu toogee yàlla def ñu am montant yu bu toll noonu ñu ne duñ si denc dara nañ ko delloo communes yi donc commune bu ne jot si 7 million am mobiliser wu euh, pour dem Matam euh, ñu def fa li nga xam ne euh, suñu mémorandum remettre ko gouverneur donc activité politique normal la bon maintenant critique nag day ànd ak politique Coudin euh, am na ni ñu ko gisee euh, moo tax euh, Matam noonu lañ ko defee yeneen département yi boo demee département Kanel defewuñu noonu boo demee yeneen département mais est-ce que ñeneen woon ñeneen wonuñu leen yoon wi laataa yéen ngeen di meeting sax on peut prendre l'exemple de euh, waa waa Linguère mm-hmm. ab forum dañu organiser def kook ndaw ñi pour mm-hmm. jéem a indi sa euh, solution euh, mm-hmm. problème mu xëy meek yenn jafe nga xamante ne moom la diwaan nga jànkonte waaw loolu mu ngi ànd ak actualité bi Linguère def nañu noonu au niveau Podor def nañu forum au niveau de njum pour réfléchir si emploi des jeunes mi ñu dellu maatam organiser forum pour réfléchir si emploi des jeunes avant ñun ñuy dem maatam di def suñu manifestation waa Kaffrine ou feneen aussi defoon nañu manifestation yi mel noonu loolu yëpp mu eh, si Benno Bokk Yaakaar APR pour wane suñu cofeel ak suñu mobilisation derrière son excellence monsieur le président de la république pour ànd ak moom mu yettal mu mottali yéen yi nga xam ne amal na ko réew Sénégal. mais est-ce que euh, réellement li li leen taxoon a jóg ak mbooloo mi c'était pas pour euh, apporter peut-être genre réplique manifestation yi nga xamante ne ñu ngi fi woon pour ne leen. ñun am nañ mbooloo. non non pas du tout parce que. loolu lay niroon xam nga ne président ñu ngi ko élire motul deux ans avec un taux confortable de cinquante pour cent et ensuite mu engagé dialogue national mu woo ñëpp te am na ñu ko fekk si donc tey boo xoolee réew mi président soxlawul démonstration de force pour wane ne ñii ñu ngi si ginnaaw wala ñi nekkuñ si ginnaaw tey euh, muy démb. confiance sénégalais yi mu ngi si ginnaaw président mais si démocratie lañ nekk donc euh, du consensus à cent pour cent non confiance bi fi nekkoon ba léegi dëkk bi du yëngu fan yële ñëpp wàcc ci mbedd mi di di xultu non ñëpp ñëpp ñëpp wàccuñ si mbedd mi ah am nañu wàcc si mbedd mi mais waxin la mooy mbooloo ak euh, sentiment général loolu moom mun mun leen ko minimiser non on ne minimise rien parce que si démocratie la ñu nekk dañuy écouter sénégalais yi surtout ñi nga xam ne ñu ngi ñuy critiquer guddi ak bëccëg di ne lii def ngeen li nii ngeen ko war a améliorer wala war ngeen euh, lii def ngeen ko waru leen ko def donc le président de la république comme nu mu ko waxee il est à l'écoute des sénégalais il compris jëli na lu ñuy tuddee message jeunesse sénégalaise donc mu ngi siy taxaw depuis lors mu ngi mobiliser ay ressources trois cent et quelques milliards pour ñu relancer emploi des jeunes bu ñu delloo si lu ñu tuddee électrification rurale bi euh, ministre de l'économie et du plan wax na ko démb si allocution l'électrification c'est un accélérateur du développement c'est un catalyseur de la création des emplois tey am na projet bu ñuy dérouler avec euh, coopération allemande mais si projet boobu non seulement dañuy former ay jeunes village bu ñu électrifié dañ siy former ñaari jeunes mais dinañ dinañ leen indil ay jëntuwaay transformation produits agricole euh, conservation ak euh, maraîchage yu mel noonu ñi nga xam ne dañuy am ay koom foofu ñu dëkk donc électricité yemul rek si indi ay euh, lumière si biir kër yi il faut Euh, mu nekk un facteur de développement te développement wala émergence mënul am fu électricité amul donc ministre bi l'a bien rappelé hier euh, monsieur Amadou Hott en disant que électricité accélérateur développement la moo tax président tamit si PSE mu ne émergence munul am fu électricité amul moo ñu ne électricité ak électrification rurale day nekk ak prioritaire ci plan Sénégal émergent. Mmh. gi nga jiite. ak yeneen bànqaas yu ci mel ni Senelec ak yeneen. Mhm. am na ñu jàpp ni waruñ ko woon pàcc pàcce noonu dañoo waroon def lépp benn société. Mhm. ngir liggéey bi gën a mën a gaaw ci yóbbu courant bi fépp ci Sénégal est-ce que yow tam loolu nga gëm. bon loolu confusion bu ñuy def la parce que agent ASER du société. Euh, dañuy dellu tuuti ci réforme bu ñu defoon 1998 bu ñuy def réforme bi pour que secteur privé bi participer ci gestion. ak financement secteur électrique au niveau. mais loolu sottiwul bi ñu doon waaj a jaay Sénégal ñoom seen ñu fomm ko. Euh, wala ñu génn ña ca nekkoon. non du loolu. xam nga réforme bi tamit jàppandiwul woon. du du loolu reforme bi euh, dañ ko def en 98 privatiser Sénélec ne léegi Sénélec sa périmètre dëkk yi am courant yi rek nga yem yeneen dëkk yi nga xam ne amuñu courant ñu créer lu ñu tuddee agence sénégalaise électrification rurale agence boobu du société. moom day électrifier du exploiter du société du jaay courant donc ASER day gunge ñi nga xam ne euh, mooy li ñu tuddee partenariat public privé ak yeneen euh, entreprise jóge Maroc jóge feneen pour ñu mun a électrifier donc euh, ASER mu ngi béy waaram Senelec société la comme yeneen concessionnaire yi ñi nga xam ne ñu ngi électrifier di jaay courant si àll bi donc ku ne am na rôle bu nga mën a jouer donc euh, je pense que warul am confusion et on continue ensemble pour réaliser l'accès universel avec Sénélec PIDC PUMA mais également concessionnaire d'électrification rurale yi Baba Diallo directeur général ASER moo ne kon sunu gan jërëjëf jaajëf Georges jaajëf euh, Fati ak ñi mu yendu ak jàmm